tey ñoo woote woon bis bii ngir sensibiliser mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi ñu ñëpp ñu àndandoo di yi santaane moo waraloon tey ñu woo monsieur le sous préfet ak euh, monsieur le ak adjoint maire Alaaji Ndiaye ak ki nga xam ne médecin chef bu Ndeye Maguette moo ko fi yebal ñu àndandoo tey jii fas yéene ànd def sensibilisation boo xam te ni mboolem marché Ocass ñi muy commerçant yi nga xam ne dañuy jënd ak a jaay kenn ku ne da nga takk masque laal sel te ñu digal la nga sax ci bu sa client ñëwee nga nga nga nga ko digal ngir jàngoro ji nga xam ne moo fi nekk ñu mën koo xeex mu jóg fi ndax dëkk bi kat mooy mooy bi marché bi mooy dëkk bi te lépp lu laal dëkk bi rek laal na marché bi moo tax ñun ñi nga xamante ay commerçant lañ te nekk ci dëkk bi xam li nga xamante ni moom la moo tax koo xam ne da nga jaay ko jënd ñu ànd ak ñu ci bis bi fexe ba képp kuy kuy nekk ci marché bi rek ñu fekk la euh, ngeen di def nii muy activité de sensibilisation la rek Euh, pour euh, doole ñaax askan wi ci respect mesure barrière yi yi nga xamante ne nii moom euh, moom mooy fexe wàllante jàngoro ji ñuy wax nii wàññeeku maanaam mu jëm ci wàllu sol masque ak bàyyi rassemble yenn rassemblement yi ak di raxas sa loxo saa yoo xamee ne nekk nga en contact ak leneen loo xam ne jàpp nga ne nit laal na ko euh, nga mën a raxas sa loxo balaa sa loxo di dellu sa kanam lu jëm sa kanam lu mel ni bakkan ak gémmañ ndax jàpp nañ ne doomu jàngoro bi mën na jóge ci loxo laal sa bakkan wala sa gémmañ jaare la foofu dugg la masque yi it ñu gën ci góorgóorlu bu baax a baax ci sol masque yi euh, ndax sol masque bi it euh, bari na ñoo xam ne tam ñi ngi koy sol waaye niñ koy solee noonu daanaka baaxut wala njariñ liñ ci séntu duñ ko am liñ ci bëgg mooy képp ku sol mag masque te bëgg cee jariñu njariñ li mooy lan mu aar la ci doomu jàngoro ji doomu jàngoro ji mën laa bañ a dugg te fi mu la mën a jaar mooy sa bakkan wala sa gémmañ kon ku bëgg a sol masque tam jariñ la boo solee masque bi na tegu ci sa kaw bakkan wàcc ba ci sa suuf si sikkim heure boo génnee nga fexe def noonu sàmmonteeg loolu ba kera ngay delluwaat sa kër